abu hurayra mooy number one mooy numéro un ci saxaaba yi raconté xadis téere boo jël moo ko ëppale bu ngeen toppee téere bi di ngeen mën a vérifier seen bopp ah bu ngeen toppee téere bi di ngeen xam ñaata xadis la abu hurayra nettali waxoon naa leen nettali na 5304 xadis kon moo fi ëppale xadis ci saxaaba yi lu mu nettali loolu nag waxoon naa leen ko sabab bi daaw yonent bi moo ko ñaanal mu jàpp lu mu fàtte lu mu lu mu jàpp lu lu mu xas ba dugg ci boppam benn la beneen bi aussi mooy amutoon métier saxaaba yi ñii am nañ tool ñii am nañu cantine ñii boutique ñii ci marché bi di jaay moom ci jàkk ji la dëkk bu yonent bi xëyee ñooy nekk ba tër yi koy tàqale ak yonent bi yonent bi day tëddi moom mu ñibbi këram wala moom mu toog ci jàkk ji pendant trois ans rek da nekk ak yonent bi ëppale Bilal ëppale Abu Bakr ëppale Omar ëppale Ousmane ëppale yaay Aïcha ëppale ñëpp xadis loolu yàllaa ko def nit ñi yeeg tolloowuñ ci capacité mémoire tolloowuñ ci de ah tollawuñ ci tollawuñ ci aussi ci wàllu intelligence ci wàllu parcourise wàllu capter wàllu mémoriser tollawuñ ci loolu ay domaine la yoo xam ni suñu boroom moo ko moo ko moo ko moo ko def ci nit ñi